dafa am loo xamante ne dafa metti réew mi actuellement kenn xàmmeetul Sénégal ndax ñàkk sécurité ray bu dul jeex subaa ngoon guddeeg bëccëg ba démb dégg nga xale bu jigéen bi nga xamante ni dañu ko ray pikin muy Kiné Gueye nekk xale boo xamante ni ku baax la man xam naa ko wallaay ñoo dëkk bokk dëkk parcelle mu dëkk inte un ma dëkk inte trois ban message ngay lancé ci lool di lancé le président Macky nañu deloosi Penda Mor Djily Penda wulli maa koy demander l'état bi parce que dafa dafa jot ku réy nit ñu réy ku xam réy ñu mutee jël nit nindi ko ñu nga am yaay am ay rak jàpp rek jàmbur buy jigéen nga rëy ko dañ laa war a rëy comme man de naa sama pistolet sama pistolet mu sama oto bat demoo Njaay ma ñu fekk sama kër fab sama télévision sàcc bat dem lañu dugg sama kër sama salle sama télé écran bu mag ñu jël ko ba ba sëtee laa jël ni sama fatel wut samay kayit di aar bopp du ma lay kenn nag waaye damay aar bopp dëkk bii dafa tollu foo xam ne na kuy di aar bopp di lancer appel la muy de na gën a vigilant ak sama xarit dafa métti jàpp nit bëccëg coono yi ko ay Cissé. jotaat naa beneen information ku ñu rey côté Ouest Foire nangu moto moom. na nu génneewaat peine de mort. donc ku mën a aar sa bopp teg ko ci yoon nag ba ñu rey kenn am légal wut say kayit ñu xam ne yow kilifa nga ngay aar sa bopp nga def ko wut sa fetel la bëgg a rëy yow buy rëy dama tànk yi rek mu laggi di lancer appel Macky Sall dafa jot mu andi ko bi lay lii barke Seydina Mohamed dafa miti dafa miti dafa miti jigéen ku tiim jigéen ku tiim jigéen ndax alal nga sañ koo rindi kooku dañ laa a rëy. waru ko baal. mbir te wul sax ñu dafa miti jigéen nag ni mu ñàkk doole. dafa am. yal na yàlla nit ñi ko def yal na saa borom nit ñi ko def ñi ko def yàlla sunu borom mën na naan nit yal na nit dafa miti barke Mouhamed dafa miti yàlla mi leen sàkk ñu ñëpp yal na leen nit ñu jàpp leen te ñooñu bu leen keppee waxuma ay yóbbu kaso waay dafa yomb waay xam nga ne jiili rëy nit ñu jàpp la yóbbu la kaso. ngay lekk di naan dafa dafa yomb waaye dama dégg rëy nit mu yóbbu la kaso lekk di naan nekk sa jàmm dafa yomb Macky maa ngi lay lancer appel lancer appel kilifa réew mi yëpp nanu delloo si peine ku rëy nit mu rëy la xalaat dañ lay rëy doo rëy mais bu la jàppee yóbbu quinze ans nga gënaat day dafa yomb tonton moo defoon a ñëwaat waaye man liiru jaan su bu ma kenn jàpp bële digg géew moom boo ko fa dóoree maara di taale bu faatu loolu moom licence bi tibbali na wallaay bo fas naa koo dóor mu dee moom moom liiru bu ma kenn jàpp jël bi laa du ma jam dama koy dóor di ko dóor ba mu faatu après waat moom moom bu deewee amut ñëppay ndoplu lii daal bu deewee yow doo nopp yow da ngaa war a wéer ndax daa bëri wax daa ko rey. Badara Ndiaye nit baax a ngi l'homme social di ma jàppale xam nga guddi gii ku ma ku ma jaay nelaw nit baax nga Badara Ndiaye la mën a gi di gërëm aussi Ablaye Ndour ministre conseiller du président Macky Sall Ablaye Ndour bi nga xam ne moo nekkoon daas su Macky ba mu jógee daas ba léegi boobu la daas jeex ci réew nit ku baax Ablaye Ndour sama papa bi ma jàppale Ablaye Ndour yaa baax yaa gore baay waaye Badara Njaay mi ku ko laal waa ka baax laa ilaaha illallah bu la gisee nga bàyyi àddina Badara. maa ngi koy jaajëfal bu baax.